waaye li Samba Ndong bu j'ai de l'argent pour ñu dem ci kilifa yi ñu ñaanal ñu rawatina doomu Casa Sey du benn nit rek moo mun wax rek yàlla xam ne yëguma ko sax ah dina leer ci kanam bientôt ci va voir non non non non non non jamais de la vie incha allah bu neexee yàlla ak yonent bi bu at bi sifflé léegi incha allah yàlla na may ndam Sa Thiès